ah bis bii nag li waral daje bi ku ne xam na ne mooy bisu màggalu Tuuba ndax bis bi rëy na rëyaay woo xam ne boroom sàkk woon ci loo xam ne muy sant ci boroomam ak di ñaan yàlla bu ak see ñëpp sant le ko ci yàlla kon mu mel ne jullit yëpp am nañu ci wàll te lépp lu ci waay def mel na ne sa bopp nga ko defal kon bu ko kilifa yi taxawalee ba egsi fii jiital ci Cheikh Mamadou Bassir ak ñi ko ci jàppale gouvernement bi itam am ci taxawaay bu ràññiku te ba ñu ko tàmbalee waajal ba nëgë ni def ci ay daje yu takku ànd ko kilifa yi ba agsi fii kon jataay bi mel na ne jataay la koo xam ne war nañ leen cee sant gërëm leen ci mu mel na nag euh, mbir moom ku koy woote te ka nga cay woo am ca wàll mu war a ñëw def ci wàllam mel na ne feeñ na fii tey ndax mboolem ñi fi jël kàddu ci chef de service yi ku ci nekk la nga wax wane na ne am nga ci yéene ju te am nga ci taxawaay boo xam ne jéem nga ca sa kem kàttan donte ci ndigal nga ko def muy ña la yilif nga ci sa cofeel ak sa yéene euh, bis bi nag moo toll noo xam ne lu ñu ko waajal waajal du ñàkk mu am ay benn yu ca des ndax bu ñu demee ba màggal gi des ñaari fan wala ñett ngir gan ñi ñëw ñu am yoo xam ne jéem nañ ci waaye teewul des na kon loolu dafay am lu mu tegtale loola mooy bu bu ñu dëgg dabee rek dañ di ko wax nañu xam ne nun ñii ñuy dimbale di ñu jàppale si ñoo war a xoolaat suñu bopp te am neneen nuñ ko war a waajale lu bàyyi xel ci ne màggalu Tuuba organiser ko ci nawet lu metti la ci ñépp waaye ci néew ji doole yi la raw ndax am na ñoo xam ne bu doon taw noor a nawet mën naa bañ a nekk jafe-jafe ci ñoom ci faju dëkk mën naa bañ a nekk jafe-jafe ci ñoom ci seeni oto di jaar waaye am na ñoo xam ne bis bu ci nekk dana wecc ci weer ci ñoom ndax métit ak néew doole kon ñooñu nag mat nañoo bàyyi xel te waajal leen te li tàmbalee 2019 bii ñuy waaj a dugg ba ci 2026 jàpp 2027 mu war a nekk juróom-ñeenti at ci kanam jàpp fukki at màggal gi nawet lay tase kon loolu kenn ku nekk war na ko bàyyi xel te néew ci doole yi ñoo ciy gën a loru ndax ba fii may waxeeg ak am na ñoo xam ne gan ña daan dal seeni kër jafe-jafe la ngir ñu mën a agsi ci seeni kër ndax bañ génnee seeni kër yàgg na te mën a guñ caa dellu te noona seeni kër mel wàllu dund ba it noona la demee te li ma ta wax mooy mag ñi nga xam ne ñoo jiite woon yoon wi sëriñ Touba seexal leen ñenn ñi di doomi ay sëriñ Touba ñooñu ku ne xam na ne jamono bañ daan organiser màggal bi booba jamono neexul ndax booba ñi ci gën a jekk ñu ci bari ay fas la ñuy war ñenn ñi di dox ñi fi indi mbooloo mi ay camion lay doon yoo xam ne bu ñuy dugalee seen benn ci biir bi ci des a nga ca bitti nga xam ne nekkin wu tar la ñuy ñëwee ñi ci des dugg ci saxaar bi kon loola ñoom nañ ko daan organiser yaakaar naa daawuñ ak lépp ci gouvernement bi la ci ëpp dañ daan jiitu ànd koog donga yi la leen sëñ Tuubaa baaxee lépp nag ñu def ko ci ba mu jeex tàkk donga yi fekk leen ci lool waaye dafa mel ne fii mu ne buñ ko seetee li ci ëpp dañ ko bëgg a yenn gouvernement bi te bu boobaa ana noonu lan mooy suñu warteef ana noonu li ñu sëriñ Tuubaa defal noonu fañ lañ ko war a féete kon loolu war nañ cee bàyyi xel te seetaat ko bu baax a baax ndax kenn ku ne koo wéetee da nga xam ne sëriñ bi féete na la fu ne waaye yow nag war ngay xalaat fan nga war a féete sëriñ bi kon nag bu fekkonte ne bis yi ñuy màggal ci at mi te màggal bu ci nekk ñu woo ci gouvernement bi mu def ca la man ak la mënul bu ci amoon lu ñu leen ci wàññil tuuti dana tax bis bi bu accès dara du ci suuf ci seen wet loolu nag waxuma ko ngir défendre waaye damaa xam ne loo xam ne yàgg ñépp a ko bokk te li leen war fii war nga leen feneen te nun kenn nattabliwul ne Serigne Touba mënal nañu lépp lenn lu nekk mënal nañ ko suñ bopp kon nañ ciy waajal suñ bopp li am solo it mooy dëkk bii li muy rëy rëy ak li mbooloo bi bari bari quartier bu ci nekk am na kilifa bu fa féete benn mu nekk sëtu Serigne Touba wala mu nekk seex boo xam ne Serigne Touba seexal maamam mbaa baayam kilifa googa bu yëgoon ne la ko Serigne Touba defal war naa mën a saytu quartier ba yépp waajale ko màggal bi ba ndox du taa fenn mbalit du am fenn mu jàppale leen ci dund ca la ko sëñ bi baaxe war naa xam ne war naa weesu ganare ganu boppam kese kese kon kenn ku ci nekk nañ waxante dëgg te teg ko ci yoon du lu ñuy gàll xalif général du lu ñuy gàll porte parole bi yoon wi dépassé na foofu màggalu Tuubaa dépassé na foofu sëriñ bu nekk quartier ba nga nekk fexe la jagal lu fa nekk sañ nga loo ca lëntale nag nga ñaan ñu indi la technicien bu la mën a accompagner ba door a jàkk waaye nañ delloo Serigne Touba njukkal te xam ne Serigne Touba li mu ci defal jombante na kenn ku nekk foo yi ci sa kër fas yéene rek di dund dund goo xam ne kii ña ca des ko gunda leen ñee xiif ak ñeey mar dara xamoo ko ci jéemoo ca lenn nañ jéem a jóg ci yoon woowu te jàpp ne sëriñ bi ca bisam bii buñ ko defee suñ lépp jàpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah